ngir ñu dem ci élection présidentielle yu atum 2024 yéenekaay bi ne Ousmane Sonko moom écarté nañu ko ci course bi waaye nag ñaxtu yu dul jeex boo moy moytuwulee nag daañu ko nemmeeku ca conseil constitutionnel niki altine ji waa mbootaayu xeeti nag jamono joojee ña ngay teg gët nag réewub Sénégal ñeel yooyee élection les éco yëglekaay di dëggal nag ne ñaar fukki candidat ak benn nag ñoo officiel gum jamono ji nag ñuy xaarandi beneenub liste waaye nag waa conseil constitutionnel nag ña ngay xamle ne date boobee ñu jàpp nag ngir ku bëgg a déposer recours bu ñu ko weesoo bépp dossier bu ñu fa déposé waat naka du ñu ko saytu Walf Quotidien di xam ne ni candidat yépp naka jàll nañ ci les élections conseil constitutionnel naka fësal na list bi war a dem ci jongante njiitu réew yi ñu jàpp cinq février atum mille 2024 yër leen bi la yëglekaay l'info àddu jëmale ci candidat bi di amadu baa nga xam ne jamono ji nag yéenekaay bi ne moom la ñuy gën di ŋàññ ñenn ñi sax naka dem ba di ko gësal kàmb donte ni naka ab candidat la boo xam ne njiitu réew mi moo ko parrainé tànn ko naka ngir mu daal di doxal mi ngi ci guddi gu bët setagul Le Quotidien yëglekaay defub enquet tey ji nag ci réfugié yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo woon ca Mauritanie fanweeri at ak ñeent nag ba tey ñu ngi ci ay jafe-jafe ngir delluwaat ci seeni dëkk rawatina nag lu jëm ci warum xëy beneen beneenub yëglekaay mu di bés bi le jour moom tey ji nag ci ab dossier bu yaatoo yaatu la daal di amal jëmale ko ci li nga xam ne rek moo di mathématique fas yéenee taxaw nag xool jafe-jafe yi wut ci saafara ci ab reportage boo xam ne amalee na ko ci yenn lycée yi nag ngir xool dëgg-dëgg fan la jafe-jafe yi IAS nag doon na loo xam ne daal mi ngi tàmbalee naax saay nag ci yenn bachelier scientifique yi lu jëmit ci wàllu fuite de cerveaux moom yéenekaay bi nag àdduna jëmale ci xarmat gi nga xam ne rek yenn professeurs yi ñu ngi koy amal te mu dox lool jamono jii yër leen bi la yëglekaay jàll ci leneen àddu jëmale ci ubbiteb tey jii nag ñeel kaan bu atum 2023 Sud Quotidien fësal ci xëtam bu njëkk ak waba fanweer ak ñeenteelub édition bu Coupe d'Afrique des Nations bi ñuy amal nag jëmale ko ci wàllum hospitalité démarré nañu ko nag tey jii fan ak ñett ci weeru janvier mu war a dem nag ba fukki fan ak benn ci weeru février atum 2024 ci Côte d'Ivoire yéenekaay bi ne ñaar fukki équipe ak ñeent nag yu gën a xarañ ci dendu Afrique ñoo fas yéene jongante nag ngir xëccoo coupe bi nga xam ne nag mi ngi ci loxol Sénégal Côte d'Ivoire nag mooy ubbi tey jii pecc mi ci digganteem ak Guinée Bissau Le Soleil yëglekaay nag dellu si jamono joojee nag ci tàmbalik fanweer ak ñeenteelu pa Coupe d'Afrique des Nations bi ñuy amalee ca Côte d'Ivoire Guinée ak Côte d'Ivoire nag tey jii lay doon bu 20 jotee mu di jongante bu njëkk nag ubbi kon bi na kaan Guinée équatoriale nag moom moo fas yéene janoo ak waa Nigéria dimanche lay doon kaan boobee nag moom la yéene kaay bi di l'observateur de l'histoire jafe-jafe yi nga xam ne rek Sénégal nar na ko am nag ngir conserver lii nga xam ne moo di titre bi waaye tamit nag lu jëm ci ni ñu war a moytandikoo daal ba mën a gardewaat titre champion bi loolee lépp yëglekaay bi dellu suwaat na ci na ñëpp jug takku te fas yéene soobu ci 34e édition bu kaan bi loolee la enquête yëglekaay daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk équipe bu jamono ji xembente fam rek mooy dellu suwaat nag coupe bi fii ci réewu Sénégal réew mi sport mi xam ne nag na ubbi nañu 34e édition bu kaan bi nag yéenekaay bi ne que la fête commence jeexale yëglekaay yi ak police bu Sicap Mbao nag ñoo teg loxo lu toll ci ñetti milliards ci ay faux billets mu di benn imam benn shérif ak kenn ku leen doon jàppale jamono ji ña leen placé ci garde à vue ca locaux yu commissariat bu Diamaguène Sicap Mbao ñoom nag lañ leen di toppee bokk na ci lëkkaloo di def ay ñaawteef beneenub ñaawteef bu ñu fekk ci libération bokk na nag